tey li ñu li ñu li ñu boole fii ci activité bi mooy ONU Sida dafay def bu ñu dëgmalee journée mondiale de lutte contre le sida euh, ñu def rapport rapport boo xamante ni dafay présenter euh, situation wu VIH euh, sida ci fii ci Afrique waaye Afrique de l'Ouest la ak du centre ci rapport boobu ñu gis ni fi ñu toll tembe lu ëpp euh, ñaar fukk ak benn million doomu aadama euh, ñi ngi dund ci doomu jàngoro ñi ngi dund ak doomu jàngoro sida bi euh, ci biir loolu lu tolloog deux cent soixante mille personnes génn nañu àdduna ci ci doomu jàngoro ci sida wala xeet feebar bu leen jàpp xale yi dafa néew trop ni ñu leen di euh, sayto ak di leen faj ci wàllu feebaru euh, sida